ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net daara du la rëcc ci réew mi. waaw tey jii ñi ngi nekkoon euh, def benn réunion fii euh, ci Massalikul Jinan parce que dafa am dafa am euh, événement bu nga xam ni suñu kanam defe na événement 2019 yéen ñëpp fekk na leen fii mooy bi ñuy inauguré Massalikul Jinan ak ni mu tolloon keroog événement bi Euh, keroog egsi woon Massalikul Jinaan nekkoon lu jafe-jafe-jafe ndax taalibe yi dañu fi presque am na sax ñu fanaan si bien que monde bi amoon Massalikul Jinaan keroog man mosuma ko gis alors euh, mu nekkoon nag événement bu mag a mag a mag et ni ñu xamee également événement ni muy déroulé woo bii ñu jëm suñu kanam it ñu ragal ni su ëppul boobu it dina toll ak moom ndax euh, xalif bi mooy ñëw euh, war fi def ñetti ba ñeenti fan euh, seet si taalibe yi waaye it ñëw jullee si àjjuma fii ci Masaalikul Jinaan muy le 27. Le gouvernement nag lim ñu sant muy président république tàmbalee ci moom mu jaar ci ministre de ba mu egsi ci man mooy événement yi nga xam ni kilifa diine yi kër diine yi ñoo koy. ñoo koy xewal ca muy drainer du monde nañu fexe ba jàppale leen lépp lu nga xam ne état war na ko def pour que événement bi jaar ci jàmm ak salaam incha allah sant nañu pour ñu def ko moo taxoon tey ñu ñëw fekk ci comité bi euh, ci ndigalu ak direction ki nga xam ne mooy représenté xalif bi fii ci Dakar muy El Hadj yu fay ñu waxtaan ak ñoom ak service technique yëpp ba lépp luy disposition pour que euh, fidèle mouride yi nga xam ne ñooy ñëw et au delà des képp ku nga xam ni jullit nga war a ñëw euh, seet si sëriñ bi taseeg moom fii ci jumaa ji nga ñëw ci jàmm nekk fi ci jàmm nga dellu ci jàmm ca événement bi du am benn jafe-jafe du point de vue sécuritaire du point de vue sanitaire du point de vue de la couverture en eau en électricité euh, ak lépp lu nga xam ni commodité la bu war a ànd ak événement bu mel nii waaw euh, dañu jël dispositif bi nga xam ni amoon na bi bi ñuy euh, bi ñuy euh, inauguré Massalikul naan ñu renforcer ko donc bu ñu leen waxee loolu rek déjà war ngeen am une ba ñuy inauguré Massalikul naan je crois que mobilisé woon nañu policiers yu bëri yokk ci policiers yi également un nombre assez impressionnant de gendarmes cette fois si également commissaire central bu Dakar dina mobiliser. élément yi nga xam ni élément yu doy la pour sécuriser euh, mosquée bi sécuriser les alentours mais également am dispositif ci axe yi nga xam ni moom mooy mené vers Massalikul Jinaan sans oublier également sécuriser kër yi nga xam ni fa la xalif bi dal waaye également fa la kilifa yi yëpp di dal bu ñu jógee ci loolu danañ yokk ci dispositif boobu ay éléments yu nga xam ne élément gendarmerie la escadron monté bu gendarmerie ñi nga xam ni ñooy ñoom ay fas la ñu yor ndax ñoom ci wàllu ubbi yoon ak ci wàllu mobilité dafa am dañu ci spécialisé wu donc dañu bëgg ñooñu ñëw ànd ak police ñu liggéey liggéey bi fii sans oublier évidemment suñu éléments yi nga xam ni ils sont toujours en civil ñi ñu leen xàmmee waaye ñoom ñi ngi ci biir nit ñi ak képp ku nga xam ni euh, sapeur pompier nga euh, euh, ci Dakar incha allah ki yor seen groupement taxaw na pour jàppale nit ñi du début à la fin su ma nee début à la fin mooy bu xalif bi duggee biir Dakar ba buy génn biir Dakar dañuy am dispositif de veille dispositif de suivi ci aspect yi nga xam ni aspect yuy ànd ak euh, mobilisation bu mel nii la. waaw xanaa euh, di di sant yàlla bu baax rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sëriñ bi Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ci li nga xam ne lii muy xéewal goo xam ni da ko defati defal ko réew mi muy ñëwug Cheikh Mouhamadul Mountakha Al Bachir bi nga xam ni moo nekk ci njaboot gi di fi Serigne Touba mu ñëwoon fi ubbi néegub yàlla bi nga xam ni moom ak njabootug sëriñ Touba ak taalibe Serigne Touba ak jullit yëpp ñoo ànd liggéeyal ko fi sëriñ Touba mi ko fi liggéeyal lislaam mu doon xew-xew boo xam ne bii matoon napp xew-xew ndaxte xew-xew la boo xam ni xew-xew bu ñu tollu gisee su ko moom la gouverneur wax léegi gouverneur maa ngi wax wax yoo la moom la mag ñi daan wax ndax wax na ko te muy loo xam ne liit lu wér la ndax ñoo ko dundandoo ndax bañ koy def jàpp nu woon nii noonu lay mel ndaxte barab boo xam ne bii ñaari million ngi nit taxaw nañ fa ci benn waxtu ak wërngal boo xam ne bii rëyut yàlla dimbali ñu ci sutoraam ak mbaaxu service yi nga xam ne service de l'État la d'une manière globale ak xew-xew yu rëy yi nga xam ni xew na ko fii ci jamono ji ci ci ci barab bi Cheikh Mountakha yàlla mi nga xam ne bii mooy boroom kàttan gi ak Serigne tubaab mi koy liggéeyal jox ko ndam lu rëy réew mi jaxasoo woon xol yi xol yi lëndëmoon ñaa suñu ñaari jàmbaar yi nga xam ni ay jàmbaar la ñu newoon ci réew mi muy l'ancien président de la République Ablaye Wade ak son successeur le président Macky Sall ñu àndandoo joxante loxo ci barab bi nga xam ni kii mu mu nekk léegi barab boo xam ne bii bu doy waar mystique yàlla defal ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha mooy wone nii eh, ñëwam gi daanaka na mu demee woon rek noonu lay demewaat ñu koy teeru nag mu baaxe ñu jënd ma jëmmam ji ak li mu toggoo lépp ni mu diise ak fii mage gi toll waaye moom buy liggéeyal sëriñ bi du xool ci jëmmam dara day day sëgg dem rekk bu ko defee nag ñu ànd ak moom mu baaxee ñu ñetti fan yoo xam ni dafay ñëw fii ci ndakaaru te ngan ngiy tàmbali alxamis ñaar fukk ak juróom benn ba ca dimanche ja ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ñëw fii di dal ci kër sëriñ Touba gi ci kolobaan waaye ajjuma ja ci kàttanu suñu borom muy yendook ñun fii ñëw julli jullik ajjuma ànd koog jullit yëpp ci réew mi ñoo ngi ci woo ñëpp fu waay ne fu ne na ñëw barkeelu ci jëmmam ju tedd ji ak mbaaxaam ak tedd ngaam ji muy ci bésub àjjuma ji yeneen bés yi ci tegu yépp nag mu nekk kook ñun ba dimanche ba altine ci kattanu suñu borom mu doog a dellu ñu ciy profité nag ginnaaw ba ñu woowee sénégalais yépp ndaxte sénégalais yi kat sëriñ bi ñëwam gi bokk na ci loo xam ne lii sant leen tamit ci la bokk ndax santoon na leen sant naa leen tamit ci turam ndax bi ñuy ubbi jumaa ji jàngu yi nga xam ne dend nañu sax muy jànge chrétien ubbi nañu seeni bunt nit ñi dugg ca biir di julli gox goxaat yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji muy karce yi ko wër ku ci ne ubbi nga sa bunt teeru gan yi teral leen dimbali leen ba daanaka nañ ko bëggee woon a dunde ñu dunde kon ci seen teeyu bakkan kon bu fi ñëwee nag ñëw googu ñëw sant leen dina ci dugg waaye sant ñi nga xam ni tamit ñoo ñu jàppale ci liggéey bi ni ma ko waxee woon sànq te gouverneur bi nga xam ni moo yor région de Dakar bi ak ay service am ñëw ci jàppale ñu ci ndigalu ministre de l'intérieur et président de la république dañ leen di gërëm gërëm goo xam ne gi am na tàmbale mais amut fu mu yem ndaxte ñoo ko àndandoon ca njaalbeen nga ca inauguration ba yàlla defit tey jii ñu àndandoo ko ñu doon def léegi ab daje CRD yoo xam ne ñeenti waxtu nga xam ne lépp loo xam ne yooyu yitte woon nañ ko ci ngan gi yitte woon nañ ko ci niñ koy waajale ñu wax ko ko mu bind ko ànd ak service yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi te nekk ci ndigalam lépp ñu nungu ko def ci ba def ci loo xam ne lii weesu na suñu njor kon ñoo ngi koy gërëm ci turu sëriñ bi di ko gërëm ci njabootug sëriñ Touba gi di ko gërëm ci turu Cheikh Mamadou Bachir mi yor kàddug sëriñ Touba di ko gërëm ci taalibey Ndakaaru yëpp nga xam ne sëriñ bi ma wax ma ànd ak ñoom ci liggéey bi maa ngi koy gërëm di ko sant di sa gërëmi kilifaam mooy ministre de l'intérieur di président de la république Macky Sall ci yombal gi ak jàppale gi ba nga xam ne bii suñu xel dal na ñoo ngi teeru nag sëriñ bi di ko séentu et tey wax rek taalibe yépp na ñëpp dal dal gi mooy fu waay toll fu ne boo séenee sëriñ bi doy lool loolu ndax séen gi rek ëpp na sax ndaxte moom lii muy def bëgg ñoo baaxe rek ak yërëm ñoo tax mu def ko ñëw waaye ku ci nekk fa nga ne boo ko séenee doy na boo ko seenul it na nga jàpp ni mi ngi ci barab bi te yaa ngi ci barab bi te la ngay sàkku ca loola yàlla dina la ko defal loolu rek la ñuy wax bañ a buuxante laabirante wax ñi dëkk ci dakaar ak ci gox yeeg gox goxaat yi ku ci nekk boo mënee ubbi sa bu néeg ubbi sa barab nga xam te julli yàggul ñetti fan yàggul e ñu def ko nañ ko defe woon rek tey ñaan suñu boroom Cheikh Mouhamadul Mountakha mi yàlla yàggal ko fi kàttanal ko ba mu nekkaat fi ba defal ñu geneen ngan koo xam ne gii mooy gën a yàgg gii mooy gën a neex bi yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ñu ko defal kon ñoo ngi gërëm ñëpp di gërëm gouverneur di gërëm service de force de sécurité yi di gërëm commission médicale di gërëm tamit comité d'organisation bi ak ta ak nit ñi nga xam ni ku ci nekk yaa ngi ci barab yaa ngi dajale la ngay dajale indi ko ngir bës bi rafet ñooñu it ñoo ngi leen di gërëm tey ñaan ki mën a fay te gis bi neex